ndax njariñ la ndax xéewal la yéene naa ko ñëpp maa ngi koy yéene bokki burit yi suñu bokki taalibe yi rawatina nag cantakon danoo am loo xam ne lu jombe la liggéey bi ñu ñuy delloo si ci biir kër Serigne Saliou te nga xam ne ñun day liggéeyal sëriñ Saliou mooy mooy sunu àddina mooy sunu mooy moom rek moo ñu tax doon sunu borom sàkk kon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 képp ku bëgg a jariñu na nga ñëw. kuréel gi yaatu na ndax waa Touba ah, gépp laa ci woon lii moom day day loo xam ni da ko da mën a su ko yéene rek ay ay kenn dama ko yéene senegal gépp képp ku àdduna sépp képp ku yëg liggéeyal Serigne Touba booy boo nga ñëw xéwal yaa ngi. ñu daane ci yëg bi nga am sëñ Cheikh wooyee sant la ndigal sama xel daal li ma jëkk a mooy sama xel daal delluwaat ca sunu jàmbaar ja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 waaw jërëjëf ndax jàpp nga ne liggéey bi dana yegg fii waaw waaw incha allah loolu nag moom gi moom sori na liggéey bi eh, ci ci ayu bis gi rek war naa mën a yegg waaw waaw camion yi tàmbali nañoo ñëw suuf saa ngi fi ñu ngi déca décapé bi presque pare na suuf si ak xeer yi tey dina yegg kon suba la ñuy tàmbali sëkk jàpp naa ni fii ak fii ak ñaari fan gën gaa bari moom noppi waaw